yu am solo ginnaaw ba mu taxawalee Ardo ak lis Ndiago combat bi nga xam ne moo ndar kàpp réew mi ak bitim réew andiwaat na leen beneen combat boo xamante bi nii yaakaar naa ne le choc de espoir la si diggante xale bi nga xam ne mooy vite fait di doomu mbër yaakaar naa ne doomu mbër jàngal bëre yàgg-yàgg des na la ñam waaye kim ko booleel nag kenn ki la ki ngeen xam ci lutte simple bi muy Pape ngaan ñu naa koy sox-sox loolu la jag sa production def ba pale boole kook wax tuuti jëf lu bëri maa ngi lay siyaare bu baax a baax mbër delloo maa ngi di ziar yéen yëpp di nuyu waa Sénégal samay mbokk waaw di baalu ñu xam. yëkkatil gi waaye. Eh, boo nar woon doo da naan jox ma nag yi waaye jox ma nag yi waxal ci kaw. <laughs> di baalu ñu di ñuy aussi gas kii Père Diax. Mm-hmm. waaw mi defar gars yi. Mm-hmm. muy def rafet na trop. Mm-hmm. am na solo vite fait maa lay siyaare bu baax di la bëggee na gaaw. waaw ah, dolli waaw di wax onze billah bismillah inna waa ni yàlla jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jaaraama maam Seera Fall gannaaw ma sant yàlla julli ci yonente bi di sant sumay ñaari waajur di samay waajur ndig di sant sama waajuru sëñ Abdou Lahad Mbacké di ko sant bu baax di ko ñaanal jàmm waaw lan moo la dugal ci booy bi lan moo ma dugal ci booy bi làmb rek làmb moo dugal ci booy bi mbër la may mbër ñu seet si ma wax ak man mhm. ñu juboo si ay kàddu mhm. ma jël ko loolu moo ma dugal si moom làmb la rek. da ngaa bëgg a wane sa bopp moo tax xale bi ñëpp bàyyi ko fi nga jël ko. waneeti sa bopp da nga naan da bëgg a waneeti sa bopp voilà. ok combat jël yëpp yaakaar naa ne bu oyof di am sax bi moo ci gën oyof combat yi jël yëpp diis. comme ñoom elo ñëpp kii wallaahi billaahi moo leen gën a oyof billaahi wallaahi taalaay waaw di ñaan yàlla yàlla yóbbuñ si bis hmm. waaw. am na solo. neena na jege si ma jege si leen ma yéen ñaar jege si leen ma bu leen ma ragal jege si nii Pape jege si nii voilà loolu mooy gën pour ñi lay jël nee na combat yi jël yëpp yaa ci gën a oyof. waa baax na loolu moom du problème waaw loolu du problème yàlla nañ ko fekkee rek waaw boobu baax ñëpp am jàpp ñëpp teewe ko ñu bëri. est que xam nga ne adversaire bu ñu ko mës a jox bu nekk da lay duma andi lay jafe-jafe daan la. man loxo benn yoon la may daan. loxo benn yoon la lay daal. waaw te jarul wax sax ñoo ngi fi yal nañu yàlla yóbbu ci jàmm rek. Hmm. waaw ba ñëw. la daal ñaari yoon. Eh, booy nee na loxo benn yoon la koy daal. loolu ay wax la rek ay wax rek. ay wax la rek. bu taxawee dëggal boppam comme ni may def ay morom rek laa koy def incha allah. bu taxawee dëggal boppam. barke Serigne Touba. yéen ñaar da ngeen may jege ba ku nekk dégg li ngay wax sa morom nee na boo taxawee dëggal sa bopp fi jaarale ay moromam foofu la lay jaarale. non man sama wax ju bëri du ci bëri yàlla ñu yàlla may wér rek ak wér ba ca bis waaw loolu rek laa koy wax jarul wax ju bari ci wax. di moom. ma ne la man daal dinaa ñëw. ah ñëw moom di ko def ku lekk avance tëdd pom. voilà lu ma rek ñu def loolu. waaw mooy diri moom laa ko jox na diri bi. bu dirisee baa dina baax ci yow. waaw ah, man bañu ma loolu. nee na nga dirisé. dama koy dirisé du ma ko ba mu bëgg a dee ma jàpp ko daan ko si kàttanu yàlla dama koy noq. <laughs> waay barke Serigne Saliou Mbacke xamul lu tax mu jël ma sax. Hmm. xam nga ñoom dañuy jóg rek ñu tànnal ay mbër moo tax. ñu jékki-jékki dugg si arène bi dama koy duuma ba mu xam ma jàpp ko daan ko barke Serigne Touba. billaay. <laughs> laay laay la la. waxi mbër la rek. mbër moom nu ko neex lay waxe lu ma mës a wax mbër def naa ko lu ma mës wax sama premier combat ba sama combat bi lu ma mës a wax mbër def naa ko barke Seydina Mohamed bu taxawee dëggal boppam ma duma ko. billaahi wallaahi taalaahi bu taxawee dëggal boppam ma dóor ko mu daanu. nee na benn yoon la koy wax la rek lu yaakaar benn yaakaar naa fukk moom lu mu yaakaar benn yaakaar naa fukk ba taxaw maa ko dàq bëre maa ko dàq xeex barke sëriñ Sall bu dëggalee boppam ma dóor ko mu daanu. hey Mbaye <laughs> yaa ngi xanaa da laa yéem. jaratu la wax sax moo ma dàq bëri moo ma dàqeexee. waaw loolu moom du ma ci ah, kon combat loo ci dara aw ma ci dara kon combat bi la. Hmm. waaw l'essentiel lu fi waay def wax rek. waaw na ko ñemee waaw. lu ba na ca del waaw. <laughs> wolof la wax de. li loo xamu ko sax li ko wax loo loolu xamu ko sax combat sama combat la lépp la fay neex maa koy def maa koy duma maa koy jàpp maa koy daan seetaan naa seetaan nga ko bu baax démb ay combat am la daan seetaan seetaan naa ko mi bëreeg ay pakalaak ay caag fay spécial sox sox seetaan naa ko ba mu jeex xam naa lim waaye man du ma ponkal maag moom ñoo tolloo ay moroom lañ bu arbitre suuf lay dox suñu diggante barke Serigne Fall dinaa ko duma ba mu xam ma jàpp ko daan ko xam na la man xamewu ma lu rak leesee ak poussière man bu ma tëddee sax damay bëri xamee woo jaaj rek sama yaram yi bëri moo ci nekk c'est que moom moo xàmmeewul jaaj ak joor mm. asantuma laa man mi nga xam ne deret gi day daw sama yaram moom c'est moom dafa ñëw si làmb nii rek xàmmeewul jaaj ak joor asantuma man mi nga xam ne deret daa nekk sama man ci man su ma déggee ay wooyu làmb su du ma nekk moom muy taxaw naan ma xàmmeewul jaaj ak joor kii kii waxkat la nee naa doomu mbër la. xamuma moo tax mu. doomu Serigne Ndiaye la yow doomu mbër nga. waaw yow. sama papa du daanu ko ba. la ilaha illallah. bëri na bu bàyyi musul daanu comprendre mais ñëwul dakaaru mii nag. nee na papaam bëri na ba bàyyi bari kenn musu ko wël bi gàng. papaam la wax doonu sa bàyyi doon sa bàyyi ko gën doomu mbër ak buñ koy buñ koy buñ koy buñ koy buñ koy. nattable hmm. marta ma bàyyi ma tax mais looy tax ba ba yi di ñëw si moom moom moo koy def. waaye kii wax da mënu maa wax ak moom man mënu wax ju bari waaw euh, damay def ñëpp gis. ok aca foogale séeréer wool wool say mbokk xam naa ne boo ñibbiwu rek doo mën a wax. non bu ma ñibbee sax man moom nii rek nii mel quoi. waaw mën ma wax ju maa ngi sant yàlla bu baax nag woote bu moom waaw ñëpp laay woo. Mm-hmm. waaw séeréer yi ak pël yi ak olof yi ak bàyyi ma kenn. waaw. di woo sama mbokk yi nag. ne leen waaw sama grand yi nag. Mm-hmm. jàpp. jàpp balaa bés ba bi rafet man moom. bu stade waaw stade bu rafetee rek di cee des waaw sur le terrain. waaw ah. maa xam lu ma fay def. <laughs> waaw di woo samay mbokk yëpp. di woo waa Bawal waa maa ngi lay woo ci baax a baax. Mm-hmm. comprendre di woo samay mbokk yëpp di woo doom nday Meta. di woo waa ASC jàmm suñ groupe dëkk maa ngi leen di woo si kombaa bi. comprendre nga. Mm-hmm. di woo sama papa Abdou Kandji bu baax a baax a baax. Mm-hmm. Abdou Kandji waa famille Kandji yëpp maa ngi leen di woo Tafa Kandji. Mm-hmm. Tafa Kandji Abdou Kandji maa si combat bu baax a baax a baax ñu def comme ni defal. si kàttanu ma jàpp it daan di woo suñu waa koñ jaxaay. booy dawalkat maa ngi woo ñëpp. di woo Moussa Niang. Birama maa ngi leen di woo. suñ monsieur le maire Diané. maa ngi koy woo si combat bu baax a baax a baax mu jàpp si ndax ñoo war a jàppale ñun amuñu ku dul ñun ñun tamit amuñu ku ñoom waaw nañu jàppale te yàlla tax quoi mm-hmm. waaw di woo ñëpp di woo képp kuy bawal bawal maa ngi lay woo si combat bi di woo Serigne Diop Bada Sène ñëpp ASC jàmb képp kuy bawal bawal maa ngi lay woo si làmb ji nga ñëw jàpp si bu baax a baax baay Mass Baye Mass Kalidou sama doom yaay la moom ma ko woowee day ñëw ma ko day ñëw di woo journaliste yëpp waaw ñooñu moom mooy loolu combat seen combat la ñoom laa may combat bi <laughs> allah mi ngi noonu léegi nag ki waral coow li moo ngi nii boroom wax tuuti jëf lu bëree bëri ginnaaw bi mu taxawalee Liss Ndiago ak Ardo yaakaar naa ne indiwaat na beneen combat boo xamante ne nii réeral na ci xele amateur yi ñu xam làmb dëgg ñoo ko mën a loqale parce que kii sama góos doomu mbër la. sox sox dégg ngeen ko léegi nee na papaam bëri na ba bàyyi bëri kenn mësu koo daan nee na moom lenn rek moo ko ñor na stade bi fees dell ci suuf mën na koo lijjanti maa ngi lay nuyu bu baax di la ziare. waaw di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziare bu baax a baax waaw macha président wax tuuti jëf lu bari bii moom di nga wax moom nan nga def ba taxawal bile combat. Ah, lu may wax booy ñoom ñu ngi nii ñaari booy yu tolloo lañ. ku nekk mhm. def ay jaloorem. Euh, Pape nekk ci si lutte simple bi di ci def ay mhm. jaloore rëy. vite fait nekk ci dóor bi di def ay vélo jaloore rëy di doomu mbërëti. Mhm. Pape tamit di doomi mbër. macha allah tolloo nañ. ci ci ah? <laughs> waaw mu ne doomu mbër la ah da nga da nga xeeb nga xeeb doomu mbërëm te mu nangul la sa bos nangul ko danga nga koy nangul bosam rek ba ba bas ba. Eh. yàlla yàlla baax na donc ñu ngi noonu ñaari xale lañ. Mm-hmm. tollu seen yoon. Mm-hmm. donc euh, ñu leen di ñaanal ku nekk def am jàmm rek. am wér entraîné bu baax. Mm-hmm. préparer mobiliser. Mm-hmm. seen ay mbokk jàppale leen. Euh, ñu ñëw def niñ daan def rek. voilà waaw feesal stade bi comme niñ niñ ko comme arène nationale la. dafa laaj ku nekk euh, multiplier. sa capacité. bu ko defee affaire bi mën a neex ko. voilà waaw. <laughs> vite fait maa ñëw si yow mu mel ni journée bi yàkkamti woo ci dara. da ngay def ndànk-ndànk di segg di taxawal combat doo ci dugal même n'importe quel combat. ah déedéet n'importe quel combat du ci dugg moom waaw déedéet loolu moom c'est une réalité dañuy xool waxtaan ak ñi ñu war a waxtaanal. Mhm. discuter ba ñëpp nangu. Mhm. waaw ñu door a dugal. Mhm. waaw li nga def ci lutte simple bi. yaakaar naa ne yaa ngi bay sa waar ci lutte avec frappe bi bëri na combat yu mag yoo ci tëgg lan moo tax nga nekk ci espoir yi di ci tëgg ay combat choc lan moo la inspiré nga dugg ci espoir yi. espoir yi ñooy làmb ji. espoir ñooy làmb ku nekk da ngay nekk liir di màgg ñu lay tete ba nga nekk mag du dëgg kon ñii ñooy làmb ji voilà làmb mbër boo eggee niveau yenn niveau yi bokkoto ñii ñooy làmb ji parce ñoom ñooy yéeg jël place bi voilà amateur yi dañuy donoon si benn affaire ñu ne Jax production day tëgg ay combat yu neex mais promotion bi du doy lan nga leen di wax ñoom lan lañ tuddee promotion ratatatatat nekk ci télé yi di wax rek <laughs> nit ku am cinquante sponsor bu ko neexee télé bu ne mu ne fa di wax parce que jàppale nañ ko am na ay sponsor mhm. mais sponsor bi ñu doon xool di tegu si yoon. Mhm. ñun ñëpp ay mais doo nekk di def ay face à yoo xam ne amul sponsor. Mhm. kan nga koy defal face à face pour le sponsor. c' pour jaay ay produit am. mais du pour làmb ji. mbër bu si nekk mooy def promotion boppam ca koñam ca ñamu àndal ca ña koy jàppale pour remplir contrat am def li ko war mais du man promoteur bi maay def promotion non ils ont ils n'ont rien mais pas pour sama làmb sama làmb damay boole ñi ma war a boole. mbër bu si ne def li ko war. mbër bu rate li ko war. yow yaa rate sa wax man du man sama wàlla matal naa ko ndax sama avance dina mat sama lépp dina mat. macha allah ma ñaax la ci côté boobu. aussi tamit mbër yi ngay tëggal combat bari na si ñoo xam ne journaliste si dañ leen di soxla mais dañuy tëjal seen porte journaliste yi. waaw duñ leen may ñu liggéey nañu war a liggéeyee. loolu ba euh, def nga ci ab jàngat. waaw noonu loolu moom day am parce que aussi mun leen nekk cinquante sites. Mm. ku nekk chaque semaine nga bëgg woo benn mbër nekk dama koy jël si mbër bi dafa am mm. dafa am préparation. Mm. di entraîner di am lu mu laaj lu mu laaj. comme ni nga ko waxee yoon bële paase. bu ñu jëlee décision boo xam ne dañ naan fii lañ jëm. fukki pro site euh, site yëpp nañ fa demandoo. boobaa mbër bi du ko mun a bañ. parce xam ne benn yoon la site yi egg si nañ. jeex na mais mënuñu tey jag si woote jël si pap ginnaaw ëllëg jag woote. jël si vite fait mhm. ginaawaate ëllëg yow nga dem keneen dem moom mbër bi kañ lay entraîné il faut ñu organiser loolu ba mu nekk loo xam ne day nekk attaque coordonnée mhm. ñëpp a ñëwandoo def li ñu war a def wax ci li ñu ci war a wax mhm. la ca des nag mbër bi moo koy def man loolu laa gëm 11 millions yi ah loolu xam ngeen ko loolu. kii bëreekatu mbapat la yàkkamti na ko yaram baa ngi si xasal te xam naa vite fait sax day ñëw ci mbapat bi jour boobu parce que affaire bi dafay neex <laughs> incha allah. macha allah ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di ko jox wàccuwaayam bàyyi ko mu dellu ci yitte yi Jax production loo bëgg na wax yow. waaw di Jax di ko gërëm bu baax a baax a baax ndaxte ndaxte wàllu mobilisation la ñuy wax laa ma ji passé dafa ma jox ñaari bolo bi ti yëpp wadd ñaari bolok yëpp wadd ma góorgóorlu benn ma fay ko benn ticket bi ak moitié bi li si des mu bàyyi ko man comme dama koy sant bu baax di ko gërëm ndax loolu jafe na si promoteur yi quoi waaw jox la ticket ticket yi réer mu nga jox ko lii mu bàyyi ak li si des dama ko sant bu baax ndax acte bu rafet la waaw di woo ñëpp rek ñim ku nga xam ne ku ma si làmb gi dama juum di woo ñëpp mhm. macha allah mi ngi noonu Jax production la woon andi leen combat Pape Boungane ak xale bi nga xam ne mooy di leen jox dig daje ba